bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi xayra xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima amma baadu gannaaw e, bu nu musoo ji seytaane tàmbale ci turu yàlla ñu ngi jënd bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi sant yàlla bu baax bu baax a baax di sant sëñ Tuubaa di siyaare bu baax di nuyu dong yëpp di leen siyaare ñoom ñëpp di am mbégte nag tey ci li nga xam ne euh, euh, gouvernement gabonais wala meeru Gabon maire gabonais jël nañ décision ci décision bi ñu jël muy décision bu rafet mooy ñu jël mbedd mu toll mii ñu nu toll jël ko tuddee ko Sëñ Touba loolu nag neex na na lool euh, te neex na sëriñ bi nga xam ne it moo la fi yabal di sëñ Mountakha moom Cheikh Mamadou Bachir nga xam ne moo jiite yoonu murit tey di ci am mbégte di sante yàlla bu baax te am mbégte ak rafet njort dina rafet njort bu baax ci jàpp nañ ne taalibe yi seen taxawaay bu rafet ak seen àndandoo bu rafet ak seen dal gu ñu am ci dëkk bi ba waa dëkk bi subventionné wuñ leen yabuñu leen wóoradikuñ leen rek moo tax seen xel dal ci ñu mën a def lu mel nii kon nag loolu nga xam ne ñoom xam nañ ko ci te moom lañ ci gis muy àndandoo bi ak jàppoo bi ak jub gi nga xam ne yàlla xewal leen ko fii ci Gabon gisuñu ñuy jël àll jàmbur gisuñu ñuy xuloo gisuñu ñuy xeex gisuñu ñuy agressé gisuñu ñuy def leen loolu moo tax ñu am yaakaar ci yéen yaakaar jooju nag yàlla wéy yàlla nañ leen ko gën a continuer bu baax ba li nga xam ne moom la borom réew mi bëgg ci réew mi yaatal leen fi loolu gën a mën a continuer gën a mën a sax ci geneen anam itam jàpp nañ ne fii barabu Sëriñ Tuubaa la luñ fi amul ci nun la ak sunu Pastef waaye barabu Sëriñ Tuubaa la ndax li fi Sëriñ Tuubaa def moom meneen réew mu ko def gànnaar la fi dem te juróom-ñaari at la fa juróomi at la fa am dellu si waat Sénégal te fii am na fi juróom-ñaari at te fii bi mu fi nekkee dafa toll ci liggéey te gànnaar ba fa nekkee dafa toll ci ñu di ko fay kon nag fii bu fekkente ni ñu war a doxe doxe nañ ko ni euh, def ci li ci war woo ci ñi ci war a woo te ànd koog ñoom te wan leen jikko ji nga xam ne moom la ñu sëñ Tuubaa jàngal incha allah ñoom seen bopp ñu fekk si ci li ñu def te dana mujj danañ deme deme dem ba waxuma la mbedd mi waaye dañ ko fi tuddee yeneen ak yeneen ak yeneen incha allah dara te di ci sunu yéene itam mooy mu dem ba nga xam ne bu taalibe yi murid yi dëkk Sénégal yëpp ñibbi woon it lii moom dut fi jóg mbooloo muy toog di dudd Sëñ Tuubaa di ko màggal di jàng xasida tey eh, sargal Sëñ Tuubaa tey siyaare ji maayoo ba ak lambar na yaakaar nañ ne loolu loolu lañ yéene ci mu nekk xam ne bu murid yëpp amoon xewal ba ñibbi tey senegal tey itam ñàkk ay jamono yu fi des di ko def loolu moo ci sunu yéene te loolu nag ci taxawaayu tey bi rek la mën a amee mooy ngeen ànd ko ak ñëpp te di ci woo ñëpp te di ci waxtaan ak ñoom ndax nit moom benn daf lay xemem ca da ngay def mu fekk la ca walla nga dem ci moom waxtaan ak moom wan ko li nga yor wax ko ci li nga ci xam mu toj xolam mu ñëw ànd ceeg yow yaar yooyu nag lépp mooy yu war la yu nu war la kon nañ fexe ba yaar yu yëpp ñu ànd di ko def wan leen bi mbirum sëriñ bi jàngal leen ko itam jàngal leen yarub sëriñ bi wa wan leen ko itam ci suñuy jëmm ak suñuy melokaan mooy suñuy comportement buñ ko defee itam incha allah loolu dana am ñuy ñaan nag euh, rek suñu borom def ci taw feex mu euh, barkeel xam naa ne du laal ci bi moom lu mën a doon aw turam ak jëmmam ak lu mu laal ak waaju ci moom lépp lu mën a doon barkeel ci seen waaye du tey ñu ñaan nag muy mbedd mi gën ci dëkk bi mbedd mi fi ëpp barke mbedd mi fi gën a yaatu mbedd mi fi gën a populaire loolu lañ ci ñaan ndax mbedd loolu lañ ci xam jërëjëf ñu ngi nii ñëpp asalaamaaleykum barkeb borom Touba barkeb sëñ Basiiru barkeb sëñ Muntaxa au nom de l'ensemble de la communauté mouride d'ici et d'ailleurs sous le ndigal du khalife général des mourides Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér avec la présence et la présidence de Serigne Kosso Mbacké Serigne Mame Thierno qui a conduit la délégation depuis Dakar sous la présence du jëwriñ des daïra de Libreville et du Gabon sous la présence du coordonnateur de la caravan du coordonnateur général de la caravan Serigne Chambeng et l'ensemble des membre de la communauté mouride du Gabon, du Sénégal et d'ailleurs. Après les quelques mots de prière et de remerciement et de bénédiction de l'envoyé du Khalif général des Mourides, Serigne Cheikh Mountakha Bachir, Serigne Kosso Mbacké, nous venons au nom de la caravane Mayumba, son coordonnateur et l'ensemble de ses membres dire que nous sommes satisfaits, nous sommes heureux, remplis de bonheur, de gaieté, de volonté, de respect et de gentillesse envers la communauté gabonaise. Nous sommes dans l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. Ce 10 août 2022, qui nous rappelle le 10 août 1895, quand Cheikhoul Khadim sortait de sa chambre à Mbacké Bari et devait rejoindre Djewal, puis Louga, puis Saint-Louis, puis Dakar, puis Conakry et les autres zones qu'il la visité en passant par Grand Bassam, en passant par Yaoundé Douala, en passant par tous les grands ports de l'Ouest africain, pour se rendre à Libreville en premier, avant d'aller pour cinq ans à Mayumba et de passer par Lambarna avant de revenir sur Libreville et repartir sur Dakar hein, le 11 novembre 1902. Le Cheikh a fait après beaucoup d'autres périples. Des périples en Mauritanie, des périples ailleurs, où les gens ont mis en résidence surveillée notre Cheikh et à Durbel où il est resté jusqu'en avant de repartir à Touba. Mais nous sommes contents aujourd'hui, après 93 ans de son départ, 1927, 2022, 93 ans. Il nous reste 7 ans pour qu'on ait 100 ans. 1927, 2027, c'est 100 ans. Donc avant les 7 ans, que la caravane Mayumba avec l'ensemble de la communauté gabonaise Mouride célèbre aujourd'hui l'avenue et la rue Cheikh Ahmadou Bamba dans le, dans le deuxième arrondissement. il faudrait qu'on remercie officiellement et solennellement le maire de la commune, chez Albert Oyam, la maire centrale de Libreville, les autorités municipales de toute la ville de Libreville, le gouvernement gabonais, les autorités sénégalaises dont l'ambassadeur monsieur Tchao, son excellence monsieur Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise au Sénégal. Remercier l'ensemble des experts, des chercheurs, des universitaires du Gabon, dont le professeur Allogo, le président des ITG, des initiatives Touba Gabon, qui depuis presque trois ans sont en train de se battre pour se mettre en rapport avec la caravane pour porter cette affaire au niveau mondial maintenant et au niveau international sous l'accompagnement de l'ensemble du comité d'organisation et du comité de pilotage de la caravane. La présence aujourd'hui à Libreville a pour nous deux enseignements, comme l'a dit l'émissaire du Khalif. Le respect que les Gabonais ont pour nous, les mourides du Gabon, notre sérieux, notre rigueur, notre travail, notre abnégation, notre courage, mais aussi le respect que nous avons devant les lois gabonaises, à accepter que nous sommes dans un pays tiers en se pliant au règlement, en respectant la juridiction locale, pour que aucune personne, aucun mouride ne soit devant la loi, dans le respect des normes légales de travail et de, de résidence qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir cette, cette, cette, cette, grande renommée et cette grande couverture que nous avons avec l'inauguration avec de la rue. Cheikh Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba, base tout son travail sur trois concepts al-ilm wal amal wal ibada tuhfatu mutadariyina al-ilm la connaissance réelle de ce qui existe et ce qui n'existe pas cette connaissance une maîtrise al-amal la mise en action ce que vous êtes en de faire mise en action des choses organisée avec le respect wal ibada dans le respect des principes de l'ihsan al-iman wal islam dans le respect des principes musulmans

il n'est pas euh, Jesse Jackson, il n'est pas tous ces gens, il est au-dessus de l'ensemble de ces responsables-là. C'est un penseur, il personne ne peut égaler Serigne dans la connaissance. Il est né à Mbakébor au Sénégal, on l'a exilé au Gabon, ici à Libreville en premier, en 1895. Et retournant victorieusement, victorieusement, Serigne Touba ndam la delluwaale, ndam la fi indi, ndam la delluwaale. victorieusement au Sénégal en 1902 après plus de sept ans d'exaction coloniale que ça soit dans le trou, comme l'a dit Serigne Fallou Bousso Tamba, dans le trou, là-bas, à Montagne Sainte, que ça soit sur l'arbre, avec les douze que ça soit lors de sa prière à Mayumba avec les quatre bâtons ou ailleurs, Serigne Touba a fait montre de courage, de sérénité, d'abnégation, de rigueur, de spiritualité. Ce que Serigne Cheikh Mbengue aime dire et que Serigne Touba a dit depuis longtemps dans Aïssa Minalaye de Djewali, yasara lii al muna la daal limbér wali man xaadalii maa xaaba an kulla wali tout ce les saints cherchent tout ce les grands connaisseurs cherchent tout ce les grands prophètes et musulmans cherchent tout est réuni ici en moi à Libreville à Mayumba au Gabon alhamdulillahi rabbil alamina nous les mourides nous sommes aujourd'hui satisfaits nous sommes contents et nous sommes reconnaissants envers le peuple gabonais l'inauguration de cette avenue, de cette rue extrêmement importante dans le second arrondissement de Libreville. Je pense qu'aujourd'hui, la caravane a posé un jalon et ce jalon doit être maintenant suivi par de grands programmes, dont la vision de Serigne Fallou Bousso, Rahmatullah Alayhi, et sa femme, Rahmatullah Allah, Sohna Diara Bousso. Pour tu le travail qu'ils ont fait à ce niveau-là, pour que ça soit porté par ses enfants. Seigne Cheikhouna Bousso et Mam Assa, accompagné des anciens et tous les gens qui étaient avec Serigne Fallou, pour aller au-delà, pour la construction d'une grande mosquée à Mayumba, la construction d'un grand centre islamique, Sokhna Diarra Bousso, à Mayumba, la construction d'un centre de santé et un ensemble de projet pour accompagner un développement touristique, un développement économique, un développement diplomatique, un développement culturel inclusif de l'ensemble du continent africain à partir du Gabon. je ñëw nañ ci yoon wi nga xam ne moom lañ tuddee Sëñ Touba fii ci Gabon maire Albert Oyam bu deuxième arrondissement tuddee ko Sëñ Touba mbedd mi nag mbedd mu am solo la fii ci Gabon ndax moom mi ngi bawoo ci kaw zone Sotega wàcc ci boulevard bi nga xam mooy boulevard président Omar Bongo bi nga xam ni mooy yaatal diine l'islam ginnaaw bu mu doonee président jébbalu dugg ci l'islam ni man je en un mouride ni moom mouride la bu jox Sëñ Touba ab xolam. bu ko defee loolu nag su yàlla dogalee moom moo permettre caravane bi seen euh, kayit yi nga xam ne ci la sëñ Fall bu sukkandiku ci ñaar téeméer nationalité yi mu ko may ba taxawal ONG bi ba ñu wootee ndaje mi ba mën a am tey loolu boo jur lii ñoo xam ne nag maire bi biñ koy fal sëñ bu Bousso dafa ñaanoon ñu amoon nationalité ñu ñëw watee si ci deuxième arrondissement bi bu ko defee kon ñoom moom ci boppam ci ak palam ak lépp nag communauté mu bii ne fii cee bokk comme ñun ñii ñëpp bu ko defee tey sëñ lu ñëw taxaw fi sëñ Kosso Mbacké di fi door a jógee nag maire centrale bi ak maire deuxième arrondissement bi ci seen ndigal la ñu gravé panneau bi en marbre mais nañ ñu ñoom suñ paree travaux yi ñu def ñu embellir yoon bi ba mu ba mu set fixé fi tableau bi fee buñ neexee def ci ay fleur ba pont bi yéeg loolu la maire centrale bi wax nee na nag maire moom dafa bokk ay vocation setal set ak setal te n na xam na ko ci communauté Mouride bu ko defee ñoom nee na nañ fexe ba mbedd mi doon mbeddum exemple moo xam ni Libreville gépp dañuy xool ci mbedd Touba ci ak set bu ko defee loolu mu doon loo xam dina mën a amal réew mi njëriñ kon daal sëñ Fallou yow mi nga xam ni yàgg nga fii Gabon ñu fekkee ko ci fukki at ak nangam sëñ Fallou di dox ba wutalee kayit ba noomale ci conseil supérieur affaire islamiques fii ci suñ kanam en tant que imam tant que imam nga nekk ko fii ci Gabon <laughs> ma gis ni tamit fii ci Gabon fii nga toog ba samp fi yor fi ak njaboot ñu ànd ko ak yow ba nga dellu Touba tey jii loola muy dox ba àddina bépp xam nañ la dina étiqueté ci Gabon sëñ bu Bousso Tamba tey lan nga wax ci mbedd mi nga xam ne moom tudde sëñ Touba te panneau bi ci sa di ko firndeel maire Albert Oyam def ko waaw euh, alhamdulilahi rabbil alamin xanaa sant yàlla bu baax sëñ Cheikh Baye fal sant yàlla bu baax a baax rek ci xéewal gu réy gii li nga wax moom kenn mënu cee teg lenn lu dul waaw lu dul rek euh, sant gi moom mooy jiitu sant suñu borom ci sëñ Tuubaa li sëñ Muntaxa di wax rek yàlla na fi yàgg lool mbàkki te ànd ak wér ngi wax ne nañuy sant sëñ Tuubaa nañuy nañuy jaamu yàlla ngir ngir di ko liggéeyal sëriñ bi waaye di liggéeyal sëñ Tuubaa di ko yàlla di sant yàlla ci sëñ Tuubaa itam waaye di sant sëñ Tuubaa itam ci wan gi mu ñu wan yàlla ak boole gi mu ñu booleeg yàlla kon ak cant rek la lii nag lu rëy rëy la euh, bi ngay wax rek sama xel dafa dal di rot ci ay boo xam ne dafa mel ne lii da koo findeelati mooy ataaba lil mamarra kal awtaani baaqin aadani min alcheytaani ah, ak duur yi wama lixtiire min jiraani naajiyatun min jaalibil xusraani ak ca nooru daaren ijaal maqarri wa mamarri fi duyuur liya shawahida bi afdali xuyuur yooyu yëpp soo ko boolee day firndeen mbedd mii ak maanaam jëf ju rëy bu njëkk ba sëñ bi di xam ne suñ borom. mi mi nga xam ne moom moo moo moo ma daqal seytaane musal ma ci seytaane. moo teeyal. moo baaxal neexal. sama sama yoon maanaam sama jaarukaay. maanaam nga xam ne baatu mamar day rot lu bare bari ci xaside yi. mamar mooy fu ñuy fu muy jaar. di jaar di dem. muy rii wala lu aw yoon wala lu mën a doon. mu yàlla moom nga xam ne moo ko moo teeyal sama yoon mooy ki ma musal ki seytaane. ci nooru daane di ba mu ne yàlla maa ngi ñaan. fi may ne mm. mooy fi may sax mm-hmm. ak yoon wi may jaar sama mm-hmm. yoon mm-hmm. ak samay kër na doon yoo xam ne dañ may seedeel bi afdali xuyóor ci ci ngën ji yiw yi lii nag bokk na ci kon lii seedeel Serigne Touba fii fi Libreville yiw yu rëy yiw yu màgg te seede googee ñun ñi dañ cee bokk ndax li nga wax léegi Sëñ fallu taxawaayam Sëñ Fallou Bousso di suñu wayjur di suñu nekkoon suñu xarit ñuy siyaar si Seexuna mii nga xam ne tey ji ah, li li arab yoo xam ne alwaladu sirru ab yi doom mooy maanaam doon mbootum baayam macha allah yal na ko yàlla dolli wér ak kattan taxawaay bi gën a yàgg lool waaye yen ñi itam ay doomi sëriñ Fallu yu ruux ngeen sëñ Seex waaw ni man mii ak sëñ Seexu naa mii ni ñu sëñ Fallu jure noonu la leen jure yen itam ci wàllu ruux loolu xam nañ ci lu bare bare bare euh, loolu nga wax keroog bi ma fi amee sama taaw muy 1900 defe naa 98 maa ngi doon xalaat sax léegi ci ci fan yi rek bànd yi muy lu yàgg mm-hmm. yéen ñii ko rek waa daayira xasaayid yéen a ñëw xëy jàng xasida yu ama am solo hmm, lu jiitu sëñ lu ñëw di ko tudd ak ak maam Jaara kon loolu euh, man man te tegtal la firnde la ci ne suñu ànd lu yàgg la te ànd bi yàlla rek ko lal ak ak itam maanaam Seexul Xadiim kon lii moom hmm. sant yàlla rek lañ ciy def te ñu xam ne daal hmm. euh, maanaam waa waa réew mi mu mu tàmbalee ci kaw ba ci suuf ba ci maire bi ko def defal nañ Sëriñ Tuubaa loo xam ne ñun ñëpp lañ ko defal ndax Sëñ Tuubaa lépp lu ko waaye defal maanaam euh, Cheikh Mountakha mi ko fi nekkal moom moom nga ko defal waaye lislaam nga ko defal waaye taalibe yi nga ko defal kon ñun taalibe yi ñoo ko war a jéem a fay mënuñu koo fay sax waaye nañ nañ ko ñaanal ñaanal borom réew mi ñaanal itam autorité municipale yi nga xam ne ñoo ko taxawee ba ñoom itam yàlla wan leen ci jëf ju rëy ji ñu jëfal Sëñ Tuubaa ndam loo xam ne day gën a jëm kaw ndax Sëñ képp ku ko liggéeyal ku nekk faaw nga gis pay gi fii ci àddina ak ak dégg nga fële ci àllaaxira kon daal moom maanaam sentiment yi mbégte rek ak ak dégg nga rek nag tey ji ñun ñëpp dañoo fier doon ay murit waaw ñun ñëpp tey fier nañ tey doon ay murit ci lii kon ci fii dégg fii ci Gabon nga xam ne fële Cheikhul Khadim liggéey la yàlla ba am du mu am ñoo ngi sant yàlla bu baax di gërëm sëñ Mouhamed mu Mountakha di ñaan mu yàgg fit te wér lool kàddu yi sax doyoon na lool bi sëñ Fall waxee rek Euh, kàddoom doy na danañ yóbbaale suñu kàddu waaye yëf Sëñ Tuubaa moom euh, géej la ku nekk mën a caa wax li may wax rek mooy euh, cant gi si mu taxaa la jiitu yaakaar na bi ñu demee Sénégal di laaj ndigal pour karawaan bi nag suñ fàllu mi ak suñ kalaam ak ñenn ci njaboot gi bi ñu demee ñoo ko annoncé woon mbedd bi xamal na ko maire bi dafa tuddee mbedd mi Serigne Touba mu am ci mbégte lool keroog daa mel ne waxtaanee waxtaan bu yaatu sax ngir bégte euh, laaj Serigne Fallou mi ay ay kàddu yu xaw a yaatu ba mu fa jógee nag sëñ bi ngir bég ci sëriñ tubaa ndax moom amul sago ci sëriñ tubaa ndax bëgg ko ak fonk ak yaatal ko loo def ci Serigne Touba rek da gis ne ni mu ci réagiré mu bind benn bataaxal boo xam ne da ko jëmale ci maire bi pour sant ko gërëm ko ñaanal ko jox ko suñ fàllu suñ jox ma ko ma jox ko suñ kalaam mu envoyé la ko nga yóbbu ko ci euh, maire bi mbingo waaw waaw waaw kon nag cant gi ñun dañoo ñëw rek xanaa di gën a dëggal cant si mu taxaa waaye sëñ bi cant na ko ca Touba bind bataaxal envoyé ko ko defal ko murid yëpp kon nag loolu dañ xam ne rek sëñ Touba euh, moo nekk nit koo xam ne xanaa lu ñu tegul suñu bët waaye lépp a ci kanam te léppay mujj dara ci ay loxoom lii mbégte la moo xam ne euh, ñun ñëpp war nañu sant yàlla bu baax gën cee jàng gën a fonkaat nag sëñ Touba murit bu nekk fii ci Gabon mu nekk modèle boo xam ne ku la gis rek si yow Sëñ nga xam ne ñu bari dana man a jaar ci yow sa comportement ak sa bëgg Sëñ Tuubaa pour mën xëy même yoon pour tàbbiti wasalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Cheikh Naama waaw lii mujjee kàddu yi daal mooy hmm. sëñ Maam Thierno Mbacke ci turu sëñ Mountakha hmm. invité na maire bi ngir macha Allah nee na dina ko wax hmm. équipe municipale ba ne Touba ñu bind lettre ci turu sëñ bi invité maire bi moom ak ñi muy àndal ñu ñëw Touba waaw kon loolu moom mooy information bi bawoo Touba jëm ci moom murid yi dëkk bi tamit am na ay tableau yu ñu dajale ak yére lu ne war koo jox meel bi mhm. comme feetu di sadul bi daa dugg ñoom seen programme xat moo tax ñoom mhm. mu am ci diggante yoo xam ne waaye dinañ fi des loolu ñu àggaleel leen ko allah waaw taxawaay bi moom euh, lenn rek la mooy suñu fàllu dafa amoon yéene ju rëy amoon vision ba taxoon ma bëggoon a jëmbatal Serigne Touba fii ci Gabon loo xam ne fondement lay doon boo xam ne lu waaye ñëw rek teg ci kawam moo mën a moo mën a jëm ci kanam mu wutoon benn ONC boo xam ne wutal na ko ay kayit ba am am récépissé ba lépp génn wutal ko ay tànk yu dëgër ngir man liggéey bi liggéey Serigne Touba fii ci Mayumba mu ma nekk liggéey boo xamante ne bi dana mën a jëm ci kanam te dara du ko mën a gàllankoor liggéey boobu nag am nay projet projet yi nag bokk na ci naal jumaa Sëñ Tuubaa ju mag ca Mayomba fam sampoon ay bantam ñu koy naa ko fii jumaa xew bi projet boobu bokk na ci sampal fa jumaa incha allah rabbi jumaa ju mag jumaa ju rëy yoo xamante bi da nekk sembul ci mbooleem murid yi da nekk sembul ci gaboo gi ndax loolu lu war a nekk la ak daara Sëñ Tuubaa yoo xamante bi dana mën a yaatal njàngalem Sëñ Tuubaa fii ci gaboo ñu xam sëriñ bi xam seen diine ba ca gabon yi sax dañu mën a léegi jàng xam seen tubaa xam seen diine mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu yaatu yaatu la boo xam ne dañ cee woo mbooleem koo xam ne seen tubaa rek ñor na la euh, nga mën a participer ci liggéey boobu loolu mooy projet yi nga xam ne fas nañ ko yéen incha allah ànd ko ak taalibe yi ci njiital Sëriñ Cheikh Mbeng mi nga xam ne léegi mooy euh, jawriñ ji ànd ko ak mboolem taalibe yi yëf nekk yëpp fas yenee loolu mu sampoon mu liggéey Sëriñ Tuubaa ñëpp mën a cee jariñu loolu mooy nekk procès yi nga xam ne incha allah rabbi moo nekk ci suñu kanam fii ci Mayumba ñoo ngi ci euh, sant di ñaan yàlla suñu borom mottañu suñu yéene